donc lii nga xam ne moom laa wax ci nasaraan moom laa dellu faram-pàccee ci lan laa wax dama ni bi tom un wu livre bii génnee nga xam ne mooy Macky Sall face à l'histoire lii bi mu génnee parce que Macky sàll face à l'histoire mënul jeex te Macky sàll continuer nekk ci nguur gi faw ñu topp ko ba histoire politique am moom jeex moo tax lii tàmbali la dafa am leneen lu ciy topp li ciy topp nag mën na génn balaa 2024 bu fekkee Macky Sall du bokk mais bu Macky Sall dee bokk après 2024 lay génn parce que loolu question de logique la voilà bi ma bindee lii ba pare nag li ma bëggoon mooy dem toog dencuwaat fi ma nekkoon pour mën a bind tàmbalee bind tome 2 waaye ay kàcc yu bari yoo xam dañ leen a dajale ñaw leen ba mu nuroog dëgg di ko wax ba mu jaaxal sama xarit yi nga xam ne ñi ngi fii ak ñi nekk bitim réew moo tax loolu ma programme woon mënatu la nekk faaw ma génn leeral ndax damay toog ay nit di ma woo fii ak ci bitim réew ñi naan ma massaak ñi naan ma kii te man xaw ma lu xew parce que dara xewloo fen mais nit ñi mën nañoo kàcc benn façon kàcc mën a dajale ay wax benn façon dajale wax boo xam ni wax ci internet bi loo xam ni dara dara dara taxawru ci dara laalu ci lépp ay kàcc léegi nag comme ñi nga xam ni àdduna nag moom ku am ñu lay sàngal am na ñu la bëgg comme ñi ma bëgg aussi ñi ngi jaaxle faaw il fallait ma ñëw leeral wax nit ñi lan moo xew maa ngi sant yàlla bu baax dara xewul dara xewul dara xewul li xew mooy ñuy yor seeni plume ak wax li ñuy wax dara du fi dëkk dara taxawu ci dara laalawu ci benn livre bi bi mu génnee Alioune Tine daf ni livre bi bomb à fragmentation loolu bu ko doon wax ci mooy bombe la boo xam ne bu dalee maanaam tës tës yi dafay dafay am day maanaam day toj dagg dagg yoham xam ne dafay tës tës di dal di dal fii di dal fii di dal fii non la ko décrire bomb boobu nag jàpp naa ne man la njëkk a dal ndax depuis bi liir bi génnee ba léegi gendarmerie nationale dañ ma woo ni ma faaw ñu garde la garde say njaboot garde sa kër di la xool man leen man demandé wu dara dara ñu ne ma woo dara laajoo dara mais information yu ñu am moo tax faw ñu wattu man nag damaa jàpp ni yàlla rek moo mën a wattu nit mais loolu aussi responsabilité état Sénégal la bu ñu jàppee ne am na sénégalais boo xam ne nii taxawaayam ci réew mi mën na koo jural loraange ñu jël pour protéger ko man nag laajuma dara il faut mu leer parce que sénégalais aussi xam nga ni ñuy xalaat ak ni ñuy waxee benn. moo tax ma ne loolu dafay jox dëgg li Alioune Ndiaye wax Alioune Ndiaye nee na dëkk bii léegi ci dictature de la pensée la ñuy dund maanaam dem na ba nga xam ni kenn sañatu la wax li nga xalaat di 17 millions senegal yëpp bu ñu d'accordoon ci dund loolu man duma ci bokk man moom dee moo ma gënal bañ a bind walla wax li ma gëm man moom duma ci mos bokk léegi nag livre bi bi mu génnee mën naa wax sénégalais yi ne leen jaay nañ ci loo xam ni de façon éditeur bi dina ko génnee yépp dans le détail c'est que livre bi un mois lay soga am te sur trois mois la ñuy joxe ay chiffres mais jaay nañ ci loo xam ni ni mosuñu koo jaay ci livre fii ci Sénégal bu jëm ci essai politique xëy na nag publicité bi wax ji indi moko ko waral Eh, tax nag ku mel Charles nga sama xarit la di sama di sama naataango dama ko dégg muy analyser muni, ni sek, Seck dafa choqué pour def buzz pour mën a jaay pour am ay milliards ma xamal Sénégalais yépp ni leen ñaanuma yàlla dërëm bu jógee ci livre bi man ma lekk ko duma ko def ci àdduna waxuma la sax mais bët ci gaa yi ak li ci bind ak ci xalaatuma ko même du sax dama ko narul dinaa woo caméra yëpp ngeen ñëw xaalis bu ci jógee ñu jënde ko loo xam ne néew ji doole yu Sénégal dañ koy soxla ñu jox leen ko parce que boo ko deful dañ naan non daf ko wax noonu pour effet d'annonce dama ni bu ñuy yóbboo li ñuy jëndee xaalis bi recette yi danañ ko publier wax ni tel nombre de livres lañ jaay xaalis bii moo ci génn lii lañ ci jënd tel endroit lañ koy yóbbu dañuy woo caméra yëpp ñu filmer ko ba ñu xam ni tappale tax ñoo jóg ci loolu benn te loolu teewul malgré li ñu jaay yëpp teewul nit ñi dañu organiser benn sabotage commercial maanaam livre bi commencé rek ñu jël PDF bi ki ko def dem nañ ba identifier ko Paris la dëkk topp nañ ordinateur am topp nañ téléphone ba identifier ko gars ma leen bu ko kenn porte la parce que li mu def daf ñu arrangé parce que teewul ñu jaay livre bi papier en même temps sénégalais yi mën a lire yëpp lire nañ livre bi man li ma intéressé du am xaalis ci livre nit ñi liir ma moo ma gënal fuuf te effet internet bi jàpp naa ne sénégalais bu mën a liir rek liir nga livre bi man loolu laa ci jublu woon dama ne loolu dafa ma jox idée pour tome 2 bii di ñëw dinañ xool nu ñuy def ba sénégalais yépp liir ko ñi am xaalis ak ñi amul xaalis ak ñi mën a jënd ak ñi mënta jënd parce que ce qui m'intéresse mooy xalaat yi may xalaat ci réew mi sénégalais yi mën ci jot loolu moo ma intéresse voilà donc. Euh, dafa ñëw ñu wax ci wax yu bari par exemple dégg naa ñu bari ni livre bi dañ ko commandité man ak jàpp naa ni mënumaa juddoo ci réew mi commandité mooy maanaam daal man nit ku tekkiwul dara laa koo xam ni nit a ma woo daal teg ma fenn ne ma daal Cheikh Yérim Seck yow bindal lii bindal lii bindal lii quoi mais mais bépp boobu xeetu yabaate mooy lan ko man ak nit ñi dañoo gis sama kanam gii ñàkk fayda ku tax nit war a taxaw ma eeg eh, attends man gis naa Bongo man gis naa Mandela man gis naa ku ne ci àdduna cest kan moo sañ a taxaw Senegal, man Cheikh Yérim rek naan ma bindal lii waxal lii xalaat mais c'est extraordinaire man daal jàpp naa ne man ni ma jàppee sama bopp ku ma xam xam ni ma jàppee sama bopp ak fi ma teg sama bopp man Cheikh Yérim Seck ak ni ma bëggee sama bopp yaakaar ne mënoo gëm ni ma nit dina ma da ngay bind lii wala da ngay def lii yaakaaruma vraiment beneen bi ci topp mooy livre bi naka la ñëwee dama génn di tukki di xool Sénégal comme ni ma ko wax ci introduction bi ma demee Qatar di seetaani coupe du monde bi gis ni gaz bi ñu am moom la Sénégal am te Qatar mën na organiser tey coupe du monde pendant que Qatar di organiser coupe du monde Sénégal tout le débat li leen intéressé woon mooy lan la son Sonko def ak Adji comme ni ma terminé introduction bi mais ma ne lii ça ça pose problème ah àddina bi ñëpp di def ñu am gaz am pétrole war a organiser l'avenir tout notre problème mooy lan la Ousmane Sonko def ak Adji Sarr mais c'est un problème yooyu révolte yu mel noonu moo tax ma bind livre livre bi amul kenn amul benn sénégalais la bu xam livre bi en dehors de kenn nit koo xam ni benn information laa doon récupérer ak moom bu xam existence livre bi avant une semaine avant muy génn amul ci àdduna mais en dehors de dans sama famille y a des membres de ma famille yoo xam ne naturellement dañ koy xam jigéen bi ngay nelawal par force booy bind livre da koy xam mais amul beneen sénégalais laa wax de beneen sénégalais boo gisee livre bi amul préface loolu moo tax lii ba ba une semaine avant muy génn ku dul Malick Gakou mosu ko ci Sénégal xamu ko parce que dafa am ay vérification yu ma soxla woon ci affaire politique Sénégal coalition yeeg ay data yu ma xamul ku dul moom xamu ko keneen ku wax ci Sénégal ni xam na existence livre bi ku dul Malick Gakou avant une semaine avant livre bi waxul dëgg en dehors des membres de ma famille bon parce que yeneen une mo vérification parce que li li ma bind yépp ci document la ko bindee mais coalition politique yi xam nga mag Malick faire dafa xam affaire ne coalition yu bari moom moo ko defar am na yoo xam ne bi may bind le chapitre là sur euh, Idrissa Seck Mburoog Sow bi ak bi may bind le chapitre sur la tâche de la troisième candidature il fallait me vérifier ay affaire ak moom bi may vérifier ak moom nag la comprendre ni man mi am na lu may bind mais en dehors de moom kenn ci Sénégal xamu ko képp ku wax ni xam na ko waxul dëgg ma ne li ma jubluwoon ci libre bi mooy susciter débat maanaam li ma jàpp ni mooy problème mu réew mi ma dut ci baaraam pour nit ñi joxe seen xalaat débat bi nag bi ma ko susciter am na ñoo xam ni wax nañ wax joo xam ni intéressé na par exemple Sénélec compagnie ci Sénégal ministère de la pêche mise au point yi ñu def xool naa ko rectificatif yi xool naa ko jàng naa ko intéressé na ma ñoom nag dama wax ñu bi waaye yàlla def na Mamadou Lamine Diallo bi mu liiree chapitre cinq libre bi nga xam ne mooy wax ci affaire Sénélec beeg électricité bi lire article neuf lire chapitre neuf livre bi nga xam ni mooy wax ci ci wàllu napp bi Il faut déposer à assemblée nationale procédure pour créer deux commissions parlementaires benn bi enquête ci li ma wax chapitre 5 bi une bi enquête ci li ma wax chapitre 9 bi commission d'enquête, enquête yi bu ñu sénégalais dinañ xam ba xam man maa wax dëgg wala CES moo wax dëgg wala ministère de la pêche moo wax dëgg commission d'enquête, enquête yi ñoom rek lay xaar document yépp mi ngi ma bu ma ma jox leen document yëpp bu ñu liggéeyee sénégalais dañ xam ba xam chapitre 5 bi li ma ci wax mooy dëgg wala li waa Sénélec wax mooy dëgg dinañ xam ba xam chapitre 9 bi li ma ci wax mooy dëgg wala wax wala li waa ministère de la pêche wax mooy dëgg loolu moom mi ngi suñu kanam am na yeneen intellectuels yu bind yoo xam ne d'accord uñu li ma kii mais mais mais respecté naa li ñu wax ku mel ni benn chroniqueur bu tudd MLD bind na loo xam ne lu metti la ci livre bi mais respecté naa loolu te naa ko am na benn expert pétrolier bu tudd Abdou Latif kan, ni mu bind interpellé na ma pourtant d' accordul ak man par contre ñi nga xam ne nag seen yaay ak seen papa dañu jur saagakat ñuy saaga ñooñu nañu mere seen yaay ak seen papa vraiment ñooñu moom nañuy saaga parce que man naka man xaw ma nag ngay mën a juddoo cim réew jigéen jur cim réew ngay saagaal keneen koo xam ne jigéen boo ko jur ci réew mi dans les mêmes conditions ni la jigéen jure loolu ku mu dal rek je pense que li la dal doy na sëkk quoi jartu sax ñu lay jéem a kii quoi nit ku dem bay saagaal nit yow sa sa ambition sa àdduna mooy saagaal nit c'est extraordinaire donc ñiy saaga moom dañu continuer saaga sama yoon newul ci ñoom